L'objet de, ce point de presse consiste à dénoncer euh, un fait inédit, une arnaque si je peux le dire ainsi, concernant la Sénégalaise, bon ce n'est plus la Sénégalaise des eaux, mais Sénéo, comme on dit. Donc euh, nous sommes confrontés à des difficultés euh, très très particulières liées aux factures d'eau. Et aujourd'hui, c'est un fait récurrent auxquels on ne peut plus faire face. C'est pourquoi nous avons fait appel à la presse pour dénoncer ce qu'on considère comme une arnaque sans explication de la part de la société dite SENO qui est chargée de fournir de l'eau aux Sénégalais. Non seulement vous êtes censé savoir que les euh, Dakarois ont du mal à avoir euh, accès à l'eau, mais les factures sont exorbitantes. Et par ailleurs, on a du mal à comprendre les modes de facturation ce qui fait aujourd'hui l'objet de, euh, cette conférence de presse. Mais aussi, vous comprenez que tous ces temps-ci, euh, il y a la question des bailleurs et des locataires qui revient souvent sur la place publique. Le gouvernement en parle, ils prennent des décisions sans cesse, à tout va, et les bailleurs subissent. On continue encore de subir auprès de ces euh, sociétés, à savoir la Sénélec et Seno, et ce sont euh, des faits qu'on n'arrive plus à supporter. C'est pourquoi on a fait appel à la presse. Donc, comme nous Ibrahim Kamara du porte-parole de Birmi, la femme a une Il qui a depuis avec la S2. Maintenant, nag ba Sénégal ñëwee la yi dafa gën a jéggi dayoo première chose yor naa fi ay factures yu bëri ma une leen ko benn par benn yaa gis ku exemple 20 000 francs ñu a triplé sa facture ay soixante mille yaay gis kër boo xamante ne dafa am ay compteur divisionnaire normalement locataire bu nekk wala képp ku nekk si kër gi da nga war a am sa compteur bopp sa facture bopp mais dafa am benn partie bu ñu naan prestation loolu borom kër gi day loué compteur bu nekk bu ñu naan deux mille cinq à l' époque l' époque chaque six mois la doon ñëw dañoo jékki-jékki changé ko def ko chaque deux mois loolu ñu nangu ko léegi nag dafa am benn partie bu ñu naan consommation Euh, normalement foofu zéro franc la war a ñëw bu ñu xaymee ku nekk li nga war a fay dara war si ñëw mais da ngay gis fii am na facture moo xamante ne c'est à Gueule-Tapée deux cent mille beneen bi à Grand Dakar euh, deux cent trois cent soixante mille loolu nga xamante ne kenn war a ko fay normalement ku ne da nga war a da nga war a porter sa facture mu yem foofu beneen mbir bu si nekk euh, yaay gis ku dëkk si kër balaa muy dëkk dañ ne la nga sa quarante nga légaliser ko. légaliser ñu yore sa tur yore sa lu nekk léegi boo demee boo fa bàyyee bor dañu naan il faut borom kër gi moo koy fay wala agence bu yore kër gi yow yaa koy fay te loolu di yoon nit ki balaa muy ñëw dafa indi contrat indi carte d'identité bi légalisé wala ñu topp ko dañ lay naan rek du la nag directement fayal mais dañ lay appartement bi dafa am bor il faut ngeen fay ko pour ngeen mën a loué waat appartement bi te ku ko fay bor bi dem na xamu ngeen kan loolu c'est des choses qu'on dénonce benen mbur bi xawat fani encore bu gëna graw exemple Kër Massar sa kër bu paré nga tabax sa kër bu mu paré ak logement mu metti da ngay def sa demande ndox yor naa fi ay exemple yu bari bo defé demande ndox des fois bu ñu ñëw natt ci woy pour ñu xamné euh li nga wara fay gaay fu ne neex lañuy tok toog natt après ñu la deux cent la ku wara a posé tuwe bu ñëwee ah mu gis ne am erreur non simplement lenteur bi amna yo xamantene 6 mois la yoo xamante ne an la ndox bi di après dañuy après ñu ne dañoo juumaat ñu tegaat la leneen sa kaw bon mbiri du jeex dafa jéggi dayo moo tax ñu woote conférence de presse pour wax bi gën a gudd ñu koy dénoncer ñu wax leen nag ñun suñu porte dafa ubbeeku ñu toog ñu régler mbir mi lii mënul continuer. comment sama àndandoo li ñu ko waxee toujours loolu lañ doon expliqué affaire bi dañoo sonn ci affaire Sen'Eau. parce que moom nguur la bon donc kenn mun si moom dara bon man lu ñu ko comprendre loolu la ko comprendre quoi actuellement mu nguur mu ngi doxalee doolam ci ci kaw population bi parce que li ñuy waxee compteur compteur bi wax nañu ko ko ba noppi am naa li gën a garaaw jékki-jékki sa compteur principal bi daa ñëw trois cent trois cinquante ba cinq cent mille francs boo demee déclaré ñu ne ko ah non bi dafa am fiit dafa am fit boo xam ne dafa am fit nga jël suñu plombier bi dem ba foofu du gis fit sama bopp damay dem ba SD dem ci directeur bi mu jox mu benn problème moo ànd ak moom mu def ko ba ne kër bi amul fit ñu ñu net ñu ñu wedd bu ñu ko weddee dem ci directeur yi boppam mu ànd ak moom dem ba kër dem xool ko mu xool ma ne ah vraiment de amul fit mais xam nga ñu fay ko mais foo ko teg xoolu ko mu ne amul vraiment amul fit mais il faut ñu fay ko ko.

fii mu ñëw normal encore consommation de am dara zéro consommation prestation kese lay ñëwé consommation zéro mais moi je bu répété ci année waat encore mu ñëwaat consommation de 350 000 francs mais ko lii fan la mun na expliquer ni tu te mun comprendre même borom kër gi beaucoup Europe boo ne expliquer nak la comprendre euh l'association en tant que telle l'association des bailleurs et ses représentants est une association qui regroupe plus de 300 membres. Donc c'est une association qui est censée représenter les bailleurs, ceux qui disposent des maisons et qui les mettent en location à Dakar et euh, dans la banlieue. Donc nous avons aussi les représentants des bailleurs, à savoir les agences immobilières. Parce que les agences immobilières, ce sont eux qui gèrent les maisons. Donc il y a beaucoup de bailleurs qui confient leurs biens immobiliers aux agences et ces agences sont censées les représenter, que ce soit au niveau des tribunaux ou ailleurs. Donc ils sont le trait d'union entre le locataire et le propriétaire. C'est pourquoi nous avons précisé association des bailleurs et des représentants. Voilà. Nous avons plus de 300 adhérents. Et donc, euh, c'est une nouvelle association, certes, que le grand public ne connaît pas encore, mais nous avons euh, jugé utile de mettre en, place cette association pour défendre nous aussi nos intérêts. Parce que tout ce que nous venons d'expliquer ici, quand même, est inacceptable. Il n'y a aucun Sénégalais qui va accepter cela. Voilà. Par rapport euh, aux nouvelles mesures dont vous avez, parlé des mesures, vous, je pense que vous faites allusion aux cautions, c'est ça, non Au problème euh, du loyer. Donc je pense que c'est une, c'est une vieille doléance qui revient souvent sur la table. Je crois que le gouvernement du Sénégal a du mal à prendre le taureau par les cornes. Nous sommes dans un pays où le gouvernement ne maîtrise pas du tout la question du logement. Vous le savez mieux que moi, le problème du logement ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas euh, des décisions populaires qui vont le régler. Je ne pense pas. Donc là, le, problème de la caution, entre autres, il y a des préalables qu'il faut d'abord poser pour régler ce problème. Tant qu'on ne passe pas par ces préalables, on aura du mal à régler le problème du logement au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal ne maîtrise pas les arcanes du problème du loyer au Sénégal, le logement. Donc il y a beaucoup de choses qui l'échappent, il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. Et tant qu'on n'arrête pas de tâtonner, tant qu'on n'arrête pas de prendre des décisions à la hâte ou euh, euh, par... Euh, euh, des, décisions populistes parce qu'on s'approche des élections. Nous, on ne fait pas politique, on s'en fout des politiques. On travaille, nous sommes des Sénégalais à part entière, et non entièrement à part. On a aussi des droits, mais les bailleurs, ils sont tout le temps pointés du doigt, ils sont stigmatisés. Nous subissons tous les coups et donc on, subit, on continue de subir. Maintenant, c'est euh, la, la et la CNELEC, c'est à leur tour aussi de, de faire ce que bon leur semble et personne ne parle. Et pourtant, nous sommes des Sénégalais. On paye nos impôts. Nous habitons ici. On a sué à, notre fonds pour construire nos maisons. Construire une maison à Dakar, ce n'est pas donné. Pourquoi on ne parle pas des prix exorbitants du fer, du ciment, du béton du terrain. Le terrain, le foncier, on n'en parle pas. Le nombre de spéculations foncières. On devrait commencer par là. Tant que les matériaux de construction sont en train de grimper, le prix du logement ne cessera pas de grimper. Donc il faut commencer par le commencement. Il faut permettre à tout un chacun, à tout Sénégalais d'avoir facilement accès aux fonciers. Ça facilitera le logement. Senghor l'avait fait. Il est le seul qui a un peu réussi la politique de logement au Sénégal. Tous les autres ont, échoué, il faut le dire. Donc là, nous, nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des privés, nous sommes des Sénégalais. On subit, on continue de subir. Malheureusement, le problème persiste. Vous avez vu vous-même, il y a de cela quelques années, en 2014, les décisions qui avaient été prises par rapport à la réduction du prix du loyer, ça n'a rien changé. Au contraire, ça s'est envenimé. Donc je pense que le gouvernement doit savoir raison garder, revenir à la case départ, essayer de trouver un terrain d'entente, écouter les acteurs, parce que le gouvernement n'écoute pas, malheureusement. Nous, nous sommes là-dedans, mais on n'est pas écouté du tout. Et le problème n'est jamais réglé, malheureusement. Les Sénégalais sont les seuls qui payent les pots cassés. S'il y a d'autres questions... Oui. Euh, justement sur euh, la chair, donc le problème des loyers dont faisait allusion à, mon collègue. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît euh, Adam D'accord. Adam En fait, je voudrais savoir, est-ce que vous, êtes en train de faire des démarches pour aider les locataires par rapport à la cherté des loyers, en dehors de la décision du ministre En fait, ce n'est pas à nous de faire des démarches pour régler le problème du loyer. Ce n'est pas que le loyer qui est cher. Dakar fait partie des villes les plus chères au monde en matière de consommation. Le loyer aussi fait partie des denrées de consommation de première nécessité. On ne peut pas vivre en SDF à la rue. Il faut qu'on se case quelque part. Donc que ce soit le loyer, les denrées de première nécessité, le riz, le pain, l'huile, etc. Tous les denrées grimpent. Ce n'est pas que le loyer qui grimpe. Si on matériel, non, pas besoin. On a aussi bien de la place. Je vous assure, matériel, sunu président mon ngi profité di ko Ibrahima Ndiaye dañu jënd matériel électricité bu ñu defee devis bi fii ça nous a coûté environ un million ñu jël devis bi envoyé suñu benn rakk bu tudd Ali Ndiaye France matériel bi l'a acheté là-bas au niveau de 300 euros mooy 200 est-ce que vous voyez écart bu si nekk léegi da fay benn transporteur mu transporter la ko nga indi ko comme ni ma wax lay dëggal c'est-à-dire que matériel bi prix yi ñoo exagéré boo xoolee problème plomberie boo demee CCS matériel lu mu doon jar boo xoolee cinq ans en arrière matériel yi dafa dafa gën a jéggi dayoo si walu terre bam on n'en parle pas boo ko xam Kër Massar y' a trente ans en arrière prix bu mu doon jar c'est pas grand chose les Kër Massar ay terrain yu jar quinze millions légui si walu terre buñ koy joxé xam nga lolu buñ ko wara buñ ko wara euh, régulariser quoi nga day simple mais les ku nek légui yaay jël nga jaay lu la neex xam nga fu doon terrain ñu jar un million légui mu jar 15 millions lolu affaire day jéggi dayo même bo demee fi ba Bayaax fi ba kayar nga ne ban ngay xoox ba Mbour ba Thiès terrain prix dafa jéggi dayoo voilà te lu mu wax tamit loolu mooy problème bi à temps Senghor bi ñu leen dégg suñu temps maam c'est-à-dire que au niveau de SICAP HLM léegi nguur bi ban politique sociale lay def pour jàppale peuple bi amul. loolu bu ñu def bu ñu def politique sociale nga xamante ne kuy liggéey ñu jàppale la ñu xool say revenu comme ni mu koy waxee comme yenn comme lu nekk dañuy copier France ñoo xam ne kii lii lay am ñu jàppale ko logement bi dañ koy séddoo seen biir c'est pas du waxu politique temps PDS fi ñu nekk ni zone de catastrophe partagé nañ ko cité góor gi foire léegi nguur bi tamit ñëwaat yaa ngi dégg temps yi ñu ne benn député am na autant de choses immobilier xam nga lu yàlla wërsëgal doomu aadama yi réew mi ñu ñëpp bokk bu am benn fiin fiin si population bu ñu ko aakimoo ñu sëriñ dañuy souffrir ñun yàlla xam na ne ku dul yërëm doomu aadama yàlla du la yërëm ñun borom kër dañuy ñëw kii mu ngi ni toog du ñu bàyyi ma fan

tugal la boo demee contesté nii au niveau de union africaine wala union européenne bu doon tugal la ñaari contrat privé est-ce que nguur mën na jóg rek mu jékki-jékki changé vingt neuf pour cent après quatorze après cinq pour cent xam nga bon ba même njëriñ noonam nekk ñu ne prix nii lay demee mais liggéey bi il faut ñu concerter tous les acteurs ñun locataires nous sommes pas des ennemis nous sommes des partenaires borom kër bu tabax këram day ñaan yàlla am mu am dara locataire am dara mais bu ñu nekkee fi di jaxasee diggante population bi te ñun ñëpp Sénégal ñëpp benn lañu voilà mbir mi il faut ñu toggaat ko togg ak acteurs yëpp moo gën a simple parce que lu ñuy kaas ni malheureusement man mosuma si dégg Ascosen mosuma si dégg sama papa ma soxna kan mosuma si dégg te affaire ndox bi dafa jéggi doyoo comme ni ko sama papa waxee na Cissé. dans les pays normaux l'eau est gratuite dans tous les pays même au Sénégal il fut un moment l'eau était gratuite mais maintenant l'eau est devenue un fonds de commerce qu'on ne comprend pas. Si l'État arrive à mettre euh, entre les mains des étrangers le, l'eau, euh, euh, pour la distribution,